massawu leen coono ndokkel leen ci at mu bees mii dugg waaye itam jéggalu leen ndax njaboot fa muy defee rëcc-rëcc xamu ko te fu mu teew kilifaam teew war na ko melalal njéggal ndax coono bi ñu dëkkoo di leen ko teg ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax bis bii nag dafa nekkoon aada ci mbooloom ndawi Seydi Cheikh Ahmed yi bu nu yegsee ci yowmul ashura Sëriñ Mansuur ci dundam moo waxoon ni nañu ko tudde journée de rassemblement des jeunesses tijanes mu wéyal ko bi mu fi jógee boobaak léegi ñu di ko def waaye jiitu na lii lu ñëw rekk bëgg a wax lu mënul ñàkk gannaaw bi ñu jaalee mbooleem senegal jiital ci président de la République jaal kilifa diine yi fi nekk yépp ëttu diine yi sunu maam ba ca tuuba suñu maam ba ca Njaasaan sunu maam ba ca Yoof sunu maam ba ca Nimzat sunu maam ba ca Kaolack wala sunuy maam ya ca Kaolack ñoom ñépp ñu ngi taasu ci seen barke ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm ci senegaal te defal ko sunu kilifa yi papa dañoo bëgg a wax rekk ci kàddu yu tënku ndax xam nañ ni jataay bi xat na te ñu def ko fii nii ñu ko defee laaj na ko at mu jot seen mag seen soppe seen xarit sëriñ Abdul Aziz moo daan teewandoo ak nun fii ngeen teew dinu tëbb ci li mënul ñàkk dinu wax ndénkaane boroom xadara bi dinu wax ndénkaane xadara bi ci warteefu ndaw ci réewam dinu tegaat ci sunu teguwaay ndax ndaw du muus lu ëpp atam dinu ñemeloo dinu encouragé ci liggéeyu yàlla bi am ci kër gi yàlla def laata bis bi dellusi mu wàcc liggéey senegal yëpp nangul nañ ko liggéeyam ni matal na te ku matal jóge fi yal na ko yàlla dolli leer yal na yàlla yokk ko moom ak magam ja mu fekki sayyid cheikh ahmed tijaan si al maktum radiallahu anhuma yàlla moo teg teg tegam fii ci kër gi te daf daan wax ni sunu maam Cheikh Seyd Haj Malik moo daan wax ni fa kullu ma faala al jalilu fa huwa jamil mu ne xadara bi lu fi yàlla def neex na njaboot gi ndax ëttam la péncam la njaboot gi fi nekk njabootam la te inna lillahi ma axada wa lahu ma aata nu nangu ko dellu jaal ko ñépp nag jiital leen ci yéen ñi nga xamante ni su amee kenn kuy ñàkk yéen ñàkk yéen ñàkk seen xarit seen soppe seen mag seen collaborateur yéen ñàkk nu njaboot gi ñàkkuñu loola nag mu nekkoon lu nuy jiital rekk wax la ko ni la la mu fi bàyyi woon yow la nu joxeñ ak sa Pape Maodo mi yéen ñaar ngeen bokk ca kële nga xamante ni moom mooy ki chapeauté lépp mu di xalif général sëriñ Babacar si Mansour ayyadahu llahu wa nasarahu yàlla na ko yàlla yokk dëgëral nu ñëw nag nun wax la li nga xamante ni rek moom la ñu ëmb sëriñ bi daf nu leen tegtal yow yaa nekk fii moom fii yilif xadara bi yilif njaboot gi mu jaadu ñu jël sunu loxo ànd kook loxo dawa ir yi fi daje yépp tàmbalee ko ci fédération yi dayratul kiram mi leen ëmb mouvement yi nekk ci biir moo xam de coordination wala fédérative moo xam dayira non coordonné nun ñépp sama loxo bi laa bëgg teg ko ci seen loxo yu tedd yi mu yóbbaale sunu jaayante nun daairatul muxtafina ak ndawi Sénégal nu wax la ni yéen lañu xool bët defe naa nii moo gën a wóor de te ñii fi nekk ñépp ànd nañ ci yal na leen yàlla dëgëral yal na leen yàlla sampal samp bu dootul sempiku yal na leen yàlla may ndam ya mu mayoon seen mag yu baax yi may leen ndam la mu mayoon seen baay ya may leen ndam la mu mayoon seen maam ya may leen ndam ya mu mayoon seen sëriñ ya bis bii nag sëriñ nun daal amatunu lu ñu wax président de la république yónni na délégation defe naa ñi ko jiite moo di le ministre de la jeunesse Papa gi Ndong sunu naatangoo la sunu collaborateur la ci liggéeyu ndaw yi ànd na ak le ministre Mbagnick Ndiaye ànd na ak délégation bu parlement sunu mag ju baax ji jiite ko mu di Moustapha Cissé bañ ko ko waxee la ni dana ñëw ndax sëriñ Abdul Aziz lu mu seqoon ak moom wëllëre woow la ñëw di mottaliku sëriñ Babacar daf ni woon wëllëre way weq moo gën way màtt mu ni mooy wëllëre wi nga séq ak nit mu sant mu séq ko ak yow nekk fi ba jóge fi bàyyi fi njaboot yóbbaale càll la bàyyi fi càll la nga jël wëllëre we wékk ko ca ñooñee loola defe naa ñu bari ñu fi teew tey looloo leen fi indi ñu ngi leen di jaajëfal monsieur Ali Lo di sunu taawu nekk di président Djibril War ànd ak président Mamadou uri Diallo ànd ak le président ay Aymerou Gning mi nga xamante ni ci mbooloo mii la bokk ànd ak sunu maire sunu doomu bay Diagne si Mbengue ànd ak Mamadou Mbengue Guèye responsable école defe naa ñooñu ñoo jëmmal la délégation gouvernementale ak ñeneen ñi ñu mënta tudd honorable député mu ngi fi di sunu député soxna Fat Sène tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di feeñalal orma dama ni woon it bu ma teewee ci sa kanam danaa sant muqaddam yi nga xamante ni ñoom la sa mag ju baax ja boole woon ak Cheikh Abdoul Aziz ñuy liggéey ci xadara bi te ku ne xam na ni kenn la woon te kenn mënul dara waaye li mu def lépp daan ko mag ñi xadara bi am ñoo ko jàppale àndandoog moom jàppale ko ba liggéeyam rafete nii mu rafete ñoom it yàlla na leen yàlla fay ak nag dawaayir yëpp wëlbatiku nag wàcc si ci sunuy sponsor sponsor yi dañu ko doxale woon noonu bëgg mbir mi su amee ku ciy def yéene rekk ku leen jegeñ lay doon sponsor yooyu ñooy seet lan moo ci jekk nun duñ leen wax dara ñii ñu nga ca xar ya ñii ñu nga ca nag ya ñii ñooy génne ceeb bi nga xamante ni moom la mbokk yi jëfandikoo ñii ñooy seet li doy ci xaalis ñu génne ko ni nañ ko jox wàññi am nañ ci kenn mu del xaaji maxtaar njaay mu ngi toog sunu doomu bàyyi la lu ne la ci nun tabaarakallah sunu mag xalifa gajaga xalifa bajaan moom it noonu sunu mag di kenn ci nun el xaaji eh, yat ma mbóoj dëkk ci kër gi bàyyi yat ma mbóoj jur ko lépp loo xamante ni daayira baa ngi ci ñii ñoo leen di accompagner El Hadji Mamadou Seck El Hadji Djibril Diallo préfet wu Dakar di sunu collaborateur am na ci ba tey sunu directeur sécurité bële di El Hadji Ablaye Diop sëriñ bi ñooñu ñoom ñooy seet lépp lu jekk ci bis bi rek ñu génne ko joxe ko ak sunu mag nag El Hadji Makhtar Cissé ñooñu daal El Hadji Gora Seck El Hadji Diop si sponsoring bi nga xamante ni moom la mbooloo mi def su jotee ñoom ñoo koy génne waaye bis bi dañu ko jëloon dara jaale ko le président de la république moo tax mu yebal délégation président Macky nag sëriñ bi duñu wax lu bari ci moom xam nañ ni ànd nag sëriñ Abdoul Aziz sëriñ Abdoul Aziz it ànd nag moom jàppale ko ñaanal ko dooleel ko yéen ñépp ngeen duggalaale seen yéene ci boobu jàppale loola nag moom lañu ñëw rek wan ko léegi mu yónnee ma nit ni ma neel Moustapha ni ko maa ngi koy encouragé ndax li mu yëngal yëkkati ko su dee ndaw rekk di ko doxal war naa am mag yu ko accompagner ci loolu du man waaye njabootu ndaw gi daaw bi ñuy tëj bis bi sëñ Abdul Aziz dafa ñaan ci ñoom dénku ni nañu leen dimbali ñoom ndaw yi ndax soxlawoo nañu ku leen jàppale soxlawoo nañu lu sàmm seen ngor ñoom ñooy yaakaaru réew mi ku iñaane sa ndono sa deyin dana ñaaw kon nag nañu jàppale ndaw yi wëlbatiku tegtal nu ay tegtalam ni mbay mi moo fi ne nañu dem ci mbay mi laata muy dog yónni na ma juróomi nit yoo xamante ni kenn ku ci ne lam la wax mooy waxal Moustapha ni ko na dem ci tool yi boobu dénkaane mu bàyyi defe naa du man dong la ko dénk ndaw yii la ko dénk ni kon nag nañu taxaw ci taxawaay boobu ndax boo bokkee ci aw pénc bëgg fu ñu lime ña ca bokk boole la ca da ngay fexe bokke ca dara bokke ci dara moo tax nu bëgg ndaw yi ñu jógaat beneen taxawaat déglu nag seeni ndigal ndax luy dox ci xadara bi mënul dem lu dul sa ndigal ku fi dogal lu muy def bu ñëwul jaarul ci yow nun dun la déglu loolu la ñu bëggoon a confirmer di ko gàttale noonu ci ñeneen ñi nu waroon a tudd njaboot Seydi Hadj Malick ñëpp teew nañ tàmmalee ko ci sunu taawu néeg bii di sëriñ Babacar Serigne Cheikh mii ñoom ñaar ñi ñoom ñooy sunuy tegtal ñoom bu sëriñ Abdul Aziz ñëwee ñun xoolatuñu sëriñ Abdou ñoom la xool waaye bu ngeen xasee ñëw nag dañ leen di teg fële yéen lañuy teg bëgg ñu ngi leen di baalu ak wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ kon jamiya bi ñu yëkkati ñetti per yi mbokk yi kon ñoo ko ñoo ko déggandoo loolu nga xam ne sëriñ Moustapha moom mooy président dairatul Moxtafina dégg nga li nga xam ne wax na ko Ablaye Gueye mu jëm ci euh, daal di delloowaat jaayante ak ñi nga xamee ne ñenn ñi ay maamam lañ ñenn ñi bàyyi lañ ci moom ñenn ñi nijaay lañ ci moom Ablaye Gueye bisimilah. xaj ma li daf ñu delloo fu rëy fàttali ñu du rëy muy mubaayaa bi doxoon ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam ya ca keroog ci bayatu te mun noon it lu fondamental ci tariqa bi di tariqa Cheikh Ahmed Tijani bokk na ci li ñu bëgg boo jëlee tariqa bi ci ki la ko ki yellu ci moom pour mu jox la ko ndax fi mu ne ku jóg di ko joxe te du ku jóg war ko joxe dafa am ñu am sañ-sañu joxe tariqa bi su la ko joxee ba pare war nañu bokk ci li ñu lay jàngal inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim loolu dafa am solo jaayante du caaxam gis nga lii loolu nekk ci tariqa bi mu ngi feeñaat it keroog tabarakallahu bi nga xamante ni sëñ Abdou làqu na ba ñuy daje ca daje ba keroog xaaj Pape Malick ñu ziar ko bu baax Pape Malick mi nga xamante ni Serigne Pape Malick di caatu Serigne Babacar Sy waaye di porte parole tariqa bi di ko Serigne Babacar Sy fonkonte bàyyi ko xel keroog mu jaayante bi mu jaayante ak Serigne Mbaye Mansour tabarakallahu di alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour jaayanteeg moom waa kër Thierno Mountaga Daha ñëw jaayante ak moom loolu du caaxaan loolu yi nag moo feeñaat tey jii ci suñu kilifa ji suñu responsable moral tabarakallahu di Serigne Moussa Fassi mu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mi jiite daayiratul muxtafina bi athaaril abaai wal ajdaad gis nga jaayante boobu la defante loxoom boobu mu jël joxe ko du loxo jëpp moom rek waaye loxo képp ku taalibe la loxo képp ku bokk ci daayiratul muxtafina waaye képp kuy njabootu xadara bi ci nga bokk moo tax mu jox loxoom boobu jox ko kilifa yi sëriñ Pape Malick Sy Haj Malick Sy bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ak seeni kem tabarakallahu Serigne sax ma Tidiane si mu Serigne Mouhamadul Mansour loxo yooyu booloo yaram yëpp a daw Maodo ndax dañuy gis ne yadullahi fawqa aydihim loxo yàlla nga ca kaw loxo yooyu. kon nag yadullahi fawqa aydihim jërëjëf Ablaye ñu ngi fii ci Tivaouane ba léegi ci ziara tam xarit bi kon na xam naa ñu bàyyi rek ñu déglu sikkar ba ci kanam tuuti incha allah bisimilah. Allah عليهم غير المغضوب عليهم ولا المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفقير ما أغلق القتل ما سبق نسى الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى ñu ngi fii ci Tiwaawan ànd ak suñu nattango bii di Abdoulaye Gaye xam nga loolu nga dégg ñu tëjee ko sax wasifa bi ñaare wala ñi nga xam ne ñu nekk ci xadaratul juma loolu la ñu koy daal di tëjee kon nag xam naa ne fii ñu toll ni tembe dañuy bëgg a tàbbi rek ci waxtaan wi euh, su ko defee xëy na Pape Malick Sy njort naa ko lool wala Hadj Malick Maodo comme euh, ci mën a doon rek mu daal di jël kaddu gi ni ñuy fàttali rek sénégalais yi mooy 2STV tey jii mi ngi def direct ci suba ba léegi ci fajar ba léegi ci at mu yees mi ci ñaanu tam xarit gi nga sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin rahmatullahi alayhi tey nag itam ñu taxaw nii ngir daal di koy gën a màggalaat bisimilah kon ñu déglu bisimilah. xaalu kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy Seydi Aboubacar Sy assalaamu aleykum bokk yi fi daje noo ngi leen di nuyu waaye ci biir nuyoo bi ñu jiital ci Cheikh Al Hadj mi toog tabaarakallaahu ci njabootam yi mu fi fekk waaye ñuy baalu di jéggalu ñi nekk ci naaj wi ah yàlla kenn mënula jot ci moom te sonnoo te dama miin ci Serigne Cheikh Tidiane si ñaare bu nit daan tàggoo pour dem Makka ni ma waxal ma ko ko bu ma ko ko waxee daf may wax ni ma nee ko bu demee màkk lu mu mën mu def lu mu mënul mu bàyyi mu ni ma ndax yàlla baadoolowul mu ni ma yéene bi la jële fii ci réew mi yóbbu la màkk ci lay dëgg pour nangu sa aj mu ni ma wax ko itam ni ko bum mu fa ñaan mukk aj gu nangu li gën a yéeme parce que kuy jóge fii Sénégal liñ lay yebe mooy boo demee nanga ñaan sa borom aj gu nangu sëñ Cheikh ni ma nekkoon na bàyyi na def farataam te bàyyi yépp ci loxo borom bi mu ni ma ndax bu ne par force nga nangu sama aj bu ñibbisee fokk am lu mu yëg lu wàññee ko ci yaramam walla ci alalam mu ni ma na dem def farataam rekk dellusi waaye yéen ñi ci naaj wi ñu wax ni lu fi yiw yal nañu ko bokk ak yéen euh, ñu nuyu ñi fi teew Cheikh El Hadj Malick ah tabaarakallaahu léeg ma déy ko ni ko da mel ni ku sonn. du ko miim mu ni ma dama sonn waaw bërki démb dañuy ànd ci oto maak moom ak sëriñ bay Sy Mansour alxalifa moom Cheikh Al Hadj Malick Maodo mu wax ma ni ma ñun grand bu yu rëy yi nuy sol lu ñu romb mu lonk ko mu ne ma bu ma yëgoon xaftaan lay sol ni yow ma ni ko sa pàppa sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu nee na faatu Cheikh Alxaaj Malik moo ko boolee grand mbubb waaye neena bi bi duy dund daawul sol grand mbubb xaftaan rekk la daan sol dallit daawu ci sol lu dul chaussure fermée mu ni waaye bi Cheikh Al génnee àdduna te mu xam ni wolof xamul sëriñ mbubb la xam nee ci lay wut grand mbubb yuy buubu ci suuf nee na dàllu Marrakech dootul jënd bu ko xat parce que Marrakech bu ëppee rafetatul waaw sa genn wàllu tànk rekk moo ciy dugg dàll wi door a rafet waaye sëñ Cheikh nee na dàllu tayal pire la parce que loo def mu summeeku Marrakech sëñ Babacar Sy nee na wolof xamul sëriñ yëre la xam mu ne moo tax mu wut grand mbubb yuy buubu wut kaala bu tàngee mag mu kaalawu bu seddee mu kaalawu waaw euh, sëñ Cheikh mës na ko laaj moom sëñ Babacar ni ko mais grand mbubb yi ngeen di sol mbubbu sëriñ la walla mbubbu ceddo parce que booba dafa bëgg sëñ Cheikh bay yére tubaab sëñ Cheikh ni ko foog yow nga wax ma grand mbubb yi ngeen di sol ndax yére ceddo la walla yére sëriñ waaye moo gën a neex a dox farata euh, ñu sant ñépp fa tabaarakallaahu am na lu diisoon waaye seen taxawaay tax na mu woyef waaw ndax eh, kii fi jóge te jóge bu fi waaw ndax ndigalam lañuy doxal ba léegi waaw ndigalam la doxal ba léegi te sëñ Cheikh si lu jiitu mu wuy ji boroomam daf ma wax ni ma bu leen wuuteeg sëriñ Abdu mukk waaw lu mu tëral ànd leen ceeg moom mu ni ma ndax dafa sonn mu ni ma dafa gimmi rekk ñu teg ko charge waaw mu ni ma ñaar lu ne daj naa ko ci ñoom pour ñu noppaluñu nanguwuñu mu ni ma soxna umul xayr ak sëriñ Abdou mu ni ma bu ma leen ne noppalu leen ñu ni li nu waxante woon ak Serigne Babacar dinañ ko respecté ba ba ñuy dem ci kanamam moo tax tabarakallahu ñu ñëw sëñ Haj Malik mi ngi may wax léegi ni ma Serigne Mbaye si nekk fi te yaay porte parole ma ni ko tout le monde est porte parole ma ni ko sëñ Mbaye see ko wax ca gàmmu ndar ñoo fa tase ma ni ko porte parole mu ni ma yewit porte parole ñun ñëpp porte parole lañ waaw waxin la waaw waxin la parce itam mission mission kër gi ëpp na kenn nit waaw moo tax ñépp a ko bokk te gis nga Haj Malik dafa léegi maa ko dalal bi nuy woy Taysiir bi mu ni ma Cheikh al Malik mu ni ma li mu xam ci yàlla ma ni ko galan buy sensibiliser yàlla rekk Maodo tëgg na ko Cheikh al Malik waaw galan buy sensibilise boroomam ma ni Maodo tëgg na ko waaw moo tax li ñépp ragal moom la gën a ñeme te dama koy wax fan yi ma ni moom Cheikh El Hadj Malick bu mësaan dégg ku ni seytaane ma mën daf koy reeloo boo nee seytaane ma mën mu ne xanaa dafa jot ci yow ki seytaane jotul ci moom seytaane du ko won nu mu toll te Cheikh Hadj Malick ñàkk na boppam ba seytaane agsiwul ci moom waaw may wax ni ñaar ñoo jaaxaloon seytaane parce que du agsi ci ñoom kii Cheikh Abdul Qadir Jeylaani la waaw radiallahu taala anhu mësul nangu seytaane agsi ci moom nu mu daan def daf daan def fu mu seen seytaane muy ñëw garab gu ko jege ci lay fàq yar téye ko ni ko boo agsee rek ma def la musiba waaw dafay mujj seytaane dafay wax ni góor gi na ba xam visite de courtoisie ma indi walla yàqal ko man dama fi jaar rek mu ni ko boo fi jaaree rek ma rëq sa ndikk waaw ma ni mais kooku Cheikh Al it lu mel noonu def na ko ci digganteem ak seytaane parce que yi gën a neex ci àdduna euh, fexe na ba mu di ko reeloo maa ngi koy nettali yàggul parce que dama ko def leçon di ko nafar waaw ma ni moom moom Maodo dafa toog di jàppal tisbaar mais bi muy jàpp ndox wi doon wal ñu mu doon jàppe sulli dërëm bu suulu woon moom Cheikh El Hadj mu jël dërëm ba teg ko ci tenqam di ko xool di ree ba ñu ma nekkaloon laaj ko ni ko góor gi looy ree mu tàll leen dërëm bi ni leen kii kii moo ma tax di ree ni mu tuutee ak li mu yàq dërëm ni mu tuutee ak li mu yàq mu ni leen fecc na kóllër yàq na ànd tas na ak bokk dërëm waaw te ku ne moom ngay xëy di wuti waaw waaye moom mu gisee noonu wax li mu yàq dugal baaraamam ba ca biir mu delloowaat fa dërëm ba la ko wax ni Malick nag doo ko ko mënal ilaa yowmil xiyaamati yooyu mooy yi tax ñu yaakaar leen waaw euh, ñiy jaamu yàlla ñi ci ëpp dem aljana tax ñu koy jàmm waaye ñi xam yàlla ñi ci ëpp jot ci moom a leen gënal dem aljana waaw yombul yombul mu mel nii tabaarakallaahu daje la daje bu nu wax ni ashura la ashura ak yañu ca war a def ci wàllu ñaan ak wàllu maa ngi koy wax léegi kër mii te dafa ñëw ma di ko tooñ ma ni ko xanaa tus nga luwuloo mu ni daf ko fàtte woon ma ni ko man tusngal seen maam soxnaa sukkan moo ma daan tusngal ba ma nekk mu kàllam man leen bi mu faatoo moom soxnaa su sëñ bi noo def sëñ bi noo def waaw dama doon wax ni dafa daan baax suñu baaxantal may jéggalu mbooloo mi yépp ndax maa daan ubbil sëriñ Moustapha di ma ubbil may ubbil sam bàpp te dara soppeeku fi moo tax ma daw xel yu metti pour ñëw ni li Moustapha def ñun ñëpp ànd nañ ci mbooleem xadara bi mbooleem ndaw ñi mbooleem siyeen yi si ñi ngi lay jox sunu loxo di ko jox sa mbokk mu baax mi di Seydil Hadji Malick ñu àndandoo comme ni ko sëñ Moussa dese defe ñun ñëpp ñu ànd ci ginnaaw xalifa bi fas yéene takk sunu ndigg di leen wax ni fa woon la woon na woon ñawoon duñu dellu duñu daw du ñu tàyyi du ñu bàyyi ñoo ngi seen ginnaaw lu ngeen wax lañu wax lu ngeen waxul waxuñu ko lu ngeen bëgg lañu bëgg lu ngeen bëggul bëgguñu ko jërëjëf si di ci dol itam di la wax ni si ñoxor ñoqali na na ñoxor mbooloo mii ngay gis yépp dañu daan poñe sa mag ju baax ji te wallaahi alazim dara jóge fi lépp a ngi fi poñe yooyu lañuy delloo siwaat waat sonn nañu jaaxle nañu bëgg nañu ay aajo yu faju mbooloo mi ngay gis yépp ku leen pikiir moo leen fi indi si pikiir baa ngi ci yéen cocktail ngeen yor duut leen ñu ko ñu dem waaw ngeen baal ñu Serigne Moustapha Serigne Habib dañoo jaayante ak mag ñi ñin waa daayira bi ñu boolewaat suñu jaayante ak ñoom muy benn mu ñëw ci yéen Serigne Abdou daf ñu waxoon nañu déglu leen Moustapha mu déglu ma ñun nag ñu ngi doon déglu Moustapha xamaguñu woon kan lay déglu wax nañu tey ku muy déglu muy yow dëggal nañ ko ñu ngi lay déglu tabaarakallaahu Euh, lu lu woykat ba wax woykat ba dafa wax ne bu fi yemoon sax mu neex tabaarakallah moo wax ni tey Ashura ñu dellusi si moom Babacar bii di taawu Serigne Abdoul Aziz ma ni ko tus nga luwuloo mu ne daf ko fàtte ma ni ko seen maam soxnaa su dem naa ba nekk mu kàllaf moo may tus ma ni ba mu fi jógee soxnaa su sama ñaareelu yaay soxna Ayda dem moo ma daan tus waaw li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ci ummu ayman wax ni ummu man ummi baada ummi mën naa ko wax ci sama diggante ak ay da dem waaw ma ni moom daal ummi baada ummi mooy sama ndey sama gannaaw ndey waaw tabaarakallaahu ah, ñu sant nag Sëriñ Abdou li mu yenu woon kenn nit mënu koo yenu li mu yenu woon réew mi yépp ku ne day seet lu mu ci jàpp yenu ko yàlla ko ko defaloon waaw tabaarakallaahu néew na li mu am ci relation ku ko am waaw ma xam ko waxuma ci Sénégal waaye à travers le monde euh, bi ci desit mësul nangu ni mën na dara waaw foo ko fekk ak situation boo ko fekk la mu lay wax mooy damay jéem xam nga boo ne mën naa lépp rekk yàlla jéppi la waaw parce que moom rekk moo mën lépp waaye tabaarakallaahu wax naa keroog fii bi nu koy jullee ma ni ku mu rendrul service ci kër gi amul tàmbalee ko ca bàyye ca Sëriñ Babacar Si Cheikh Alxaaji Mansour Alxaaji Abdul Aziz Alxaaji Habib kenn ku ne woo nga ko yónni ko mu doxal la la nga ko yónni ci sa digganteeg moom door a ñëw nag ci ay magam tàmbalee ko ci cheikh Mouhamadul Moustapha Jamil cheikh Mouhamadul Mansour cheikh Sayid cheikh Ahmed Tidiane ak ñun ñi nga xam ni ñoo topp ci gannaawam tabaarakallaahu ñun ñépp suñu goro la moom seen jàpp ndax kenn ku nekk ci ñun moo la ñaanali soxla waaw te buy dem di la ñaanal soxna dafa la naan bu ma jox 15 may jënd guro oto bi bu gaaree dana fekk pañe guro ngi ci gannaaw oto bi euh, mu nekk ci loolu waxtaan nañu mag moom mi ngi ci lalu feebaram waaw mu ni nañ ma may euh, ñu may ko ma ni la ma waxtaan ak moom it incha la ma ca ñaan épisode par épisode laa koy joué incha loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk ñu ni Ashura nag tey man dama defe nii yi nu ñaan ci bëccëg bi fii waxuma sax fii waaye kenn ku nekk ci seen néeg dama yaakaar ni moo war a nekk sunu programme quotidien bañ a xaar ba Achoura rek waaye ñu ñaan waaye léegi dafa mel ni nit ñi pexe pexe lañu ñu gën a gëm ci ñaan waaw ah te mag ñi nag bu ñu mësaan bëgg a doxi farata bu nu xëyee suba la nuy njëkk a mooy ñaan jiital ci ñaan gi mooy mbëkk bunt yi waaw waaye boo jógee yow boo euh, sëppee sa tànk la ngay njëkk xalaat mooy li nga fanaane xalaat xam nga sommeil sommeil paisible amatul waaw sommeil mécanique moo am parce que def fay sës rekk nga def ko waaw doo xam fu nelaw neexee waaw te dafa am lu lu war a tax mu neex maa ngi koy waxtaan ak Cheikh Hadj Malick mi ak Serigne Mbaye Sy Mansour waaw moom Serigne Mbaye Sy mu di ma wax ni ma bu ma sonnee dëgg-dëgg bu ma nelawee te kenn yewuma rekk euh, sama coono wàññeeku ma ni ko loolu tax yàlla teg nu ko bon mu gëmmentoo nga nelaw ma ne ko xam nga may nañu la julli gee bu fekkee nga gëmmentu may nañ la nga bàyyi ko ba fajar nga julli ko fajar bu la neexee nag nga julli ko ci guddi gi sëñ si Tidiane si dafa ma daan wax ne ah comme may nañ la ko ba fajar man bu ma sonnee damay nelaw ah, mu ne ma bu fajaree ma julli ko parce que doo ci am bakkaar waaye yooyu yëpp ah waxunu waxunu nelawi te përle waaw waxunu nelawi <laughs> te baaxul waaw eh, dama am sam benn eh, wëllëre bu nekkoon Dakar waaye mu ñibbi eh, Europe am na trente ans ñëwul Sénégal daaw mu ñëw fi muy wër nag fu ne mu dugg fa bi mu ñëwee ñuy waxtaan mu ni ma mais Malick Malick rek la may wax mu ni ma quand j'ai quitté le Sénégal il pas tout ce kërëb kërëb ma tout ce kërëb kërëb <laughs> ma ni ko doom maintenant de y a tout ce kërëb kërëb waaw ma ni ko loolu daal la yàlla dogal waaye tabaarakallaahu bari na lu ñuy soow di wax mi euh, réew mi neexul mën na am àdduna bu yomb moo amul xam nga lu ñu indi fii marqué suñu exil aadama dafa juum ci aljanna jéggalu yàlla jéggal ko conditionné ko wax ko ni ko jéggal naa la waaye foog nga dem exil waaw fii loo fi am dañ la ko defal fa nga jëm nag loo fa am yaa ko defal sa bopp moo tax mu metti waaw sëñ Cheikh si wax ni bari na lu ñu sikke àdduna tëdd ci àdduna bi ci nit ñi la ma ni kon lu ñuy def ba am solution mu ni mën na nit ñi bàyyi taxawaaloo ko waxte liggéey bu ñu ko deful duñu am solution waaw taxawaalu ak wax waaw yomb na Sénégal lool waaw ba tax na euh, Serigne Abdou euh, xaw naa ko miin waaw ndax bi may jàng ci Serigne Cheikh ba activité ëpp ko doole tuuti daf ma jox sëriñ Abdou euh, mu am tempérament moom Serigne Abdou ñi mu maaseeloon ci daara ji daan ànd ak moom dafa am luñ ko daan jëwe dañu daan wax ni ah moom de meram du yàgg du paase juróomi minit mu génn ca daf lay ruus xool sax waaye juróomi minit yëpp mën na ca taal àdduna juróomi miniti meram ma ni gis nga eh, dafa appliqué li yonent bi wax yonent bi nanguwul ku dul mer mais nanguwul it kuy mer te du meddi loolu la wax moom yonent bi nee na sang piir bu mer jotee ci moom mu mer waaye bu jeexee jeex na ah. ma ni juróomi minit ya muy mer la mu cay toj tabaxaat ko yombul waaw euh, tabaarakallaahu maa ngi koy waxtaan démb ak suñu benn doom ca Ndakaaru mu ni ma sam papa Abdou ma ne ko waaw mu ni ma générosité am moo koy poussé daf lay may ba noppi digg la waaw te dafa am bés ñuy waxtaan moom moom sëñ yàbb mu ni ma sëñ Cheikh daal man ni mu généreux jaaxal na ma moom sëñ yàbb du wax mu ko ci sëñ Cheikh mu ni ma dama doon waxtaan ak moom di ko wax ni ko sëriñ bi ni ngay mayee dafa ëpp ne sëñ Cheikh ni ko asiis gor dañ koy dimbali waaye kenn du ko sarax mu ni ko am na loo xam ni ku ko jox gor tudde ko ndimbal danga yokk ay soxla ni ko parce que du xam nu mu koy def waaw may wax xale yi ma ni leen kenn yóbbe ko lu dul woy jur bu jigéen soo soxna si dafay ñëw <coughs> géer <coughs> sëñ déedéet dafa am leneen lu ci am moom xam nga bu ma ko nee guerrier xam na li tax ma ko gis nga man ñi jàpp ni samay doom la nu ay cousin laa leen jàppe parce que ñoo may détendre ñoom rek laa mën a tooñ waxtaan ak ñoom waaye ku ci ne am na lu ma lay tooñee waaw gis nga soxna si dafa doonoon koo xam ni bu ñëwee ni la am na koy tàggoo may ko paas nga dindi vingt cinq mille francs jox ko ne ko joxal ma ko mu ni bàyyil ma lebal la vingt cinq mille tegal la ci moo gën a rafet muy cinquante te du la ko fayu boo ko joxee cinquante mu lebal la cinquante teg ci muy cent waaw yooyu nag ñu di ko waxtaane ko waxtaane di ko waxtaane di ko waxtaane mais Serigne Abdou lenn moo ko daan feebar li ñu ragal ñun ñépp moo ko daan feebar mooy banque te xam nga lu tax ragal ku ko bett diis ko soxla te faju ko waaw moo moo ko daan feebar mu nekk kër nit ko xam ni tey loo koy ñaanal ñaanal ko fu mu toog rekk am liquidité ndax ñu koy diis soxla du pour moom du pour doomam yi de waaw mais ñiy ñëw hmm? yooyu dellu ci jikko yiw dellu ci tabaarakallaahu yaatal dënnam waaw yaatal dënnam <coughs> yàlla ko ko seddewoon woon loolu moo am tabaarakallaahu e eh, mu mel ni kon bëccëg bi li nu fi ñaan teg ko ci leeru yonent bi teg ko ci leeru mag ñi yal na nu ko yàlla nangul nangul nu ko ci biir nangul nu ko ci biti dama doon ubbi rekk Cheikh Al Hadj Malick waxtaan ak yéen tabaarakallaahu waaw mu mel ni kon jataay bi Cheikh Al Hadj mii moo ko moom ñu déglu ko tabaarakallaahu bu ñu paree mu ñaanal ñépp ah bu ñu paree yeewee waaye rekk ñu xam ne bari na yu nu fii xaar waaw bari na yu nu fii xaar yu ci nekk dañu ko programme waxtaane ko ci kàttanu borom bi incha allah ñu sant délégation yi ñëw ci turu président de la république yebal na fi délégation bu am solo wax naa keroog bi mu njëkkee ñëw moom président Macky waxoon naa ni mësuñu ànd ak nit nëbbu ko

yàgg nañu yàgg nañu ñu may nu tuuti ñu àggale ah Cheikh El moo ñëwoon pour ñu bokk ak moom jataay bi mu waxtaan ak yéen ñaanal leen yàlla tabaarakallaahu ci barke mag ñeeg seen leer li ci des nag mooy ba léegi ñu jëggalu leen ci naaj weeg coono yi waaw kenn bal nu ko waaw bu nu sañoon kenn du fi yëg lu tàng kenn du fi yëgit lu diis waaye yàlla kenn du ko am te mérité wuloo ko loolu moo tax kon nag lu ñu fi yaakaar ci yiw yal na yàlla won lu ko ëpp yàlla defal nu jàmm biir jàmm biti tabaarakallaahu sant ñëpp waaye ñu sant jigéen ñi waaw ndax ñoom itam lii yëpp ñoom la seen barke tabaarakallaahu ak seen coono ah, te ñoom nag sëñ Babacar Sy leen féete woo waxoon na ñoom la féete daana ñu bàyyi Cheikh El Hadj Malick mu sànni li muy sànni ma ni waxoon naa keroog bi nuy sant président Macky Sall ci yi ma sëriñ ab du dénkoon la bokk dafa ma ni rekk na ngeen bàyyi xel président Macky ma ni ko incha allah euh, waxoon naa ni mësuñu ànd ak nit nëbb ko mësuñu contre nit it nëbb ko mani ni sunu yooni prison yu bari looloo ko sabab ma te dafa am baat bu nuy tudd te existewul mooy neutralité neutralité ça n'a jamais existé Blaise Diagne moo daan wax ni ku la ni je suis neutre nekk contre kii